مثلها Abdul Xaadir ñettali na ma ne sëriñ mi nga xam ne moo njëkk a wutu Cheikh Ahmadou Bamba dafa yónni sëriñ Madiba Silla ci Cheikh Ahmadou Bamba sëriñ Madiba Silla dem joxe yónnanti ba ak addiya bi mu wàññi koo jaar ci a Cheikh Ibrahima Fall Babul Muridina bi mu jaaree ci Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibra Fall téye ko ne ko Madiba mu ne ko Mbàkke mu ne ko añ sëñ Mawri Moustapha mu ne ko ma nga fa mu ne ko gis sëñ Bamba daa neex rek waaye dara du yàqu gis sëñ Bamba daa neex waaye dara du yàqu sëñ ma diba nee na bi ma ñëwee ba nettali ko sëñ Mawri Moustapha daf ne cey Cheikh Ibra Fall moom de fu sëñ Touba def dara rek xam na ko ndax xam na ne sëñ Touba yóbbu na ma biig foo xam ne jox na ma lu dëgër ne ma téyeel wéer ma fu dëgër koo xam ne kenn mënu maa daane su ma xëccee dana ñëw su ma jañee dana dem ñetti fan lañ ci teg si Ahmadou Bamba dem rafiqul ala kooku mooy Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bu mu ñëwagul jàmmaamut moom Cheikh Ibra Fall bi mu ñëwee la jàmmaam teej ka làmbaay damel sa kajoor ka fa tama keef gi kaang la faa gi fóori la taa tomb gi tëf si alxuraan mi mi musta mooy yàlla looloo nga ba mu ñëwagul dóor ak yeew ak damm ak rey moo fi nekkan tey ma moom la bi mu gënee ñëpp ab juddu gën ñëpp ab laan gën ñëpp ay bokk sukkuraam ni joxe naa sax bopp àddina ak àllaaxira ci la jàmm door a amee kon Cheikh Rafa la indi jàmm Sénégal moo ko indi Europe moo ko indi ci yoon wi moo ko indi ci fépp fu yàlla nekk te jàmm ne fa moo tax ku bañ Cheikh Rafal Sëñ Tuubaa nga bañ waaw koo dégg mu contre Cheikh Rafal Sëñ Tuubaa la bañ te bu deewee te tuubu ko dem sawara soo ma su gaawaan dani bu nu amee fit mbaa jom mbaa fulla fi Cheikh Rafal teg sëñ tubaa te yàlla tax am na noo xay ku ko def sa baay waroo koo yemale ku yàlla bind te Cheikh mu teg tegu fa ku yàlla bind kon nun doomi war na noo teg Cheikh Rafal fu ko kenn tegut fu ko faay wàccee kawe na foofa kon Cheikh Rafal lañ di jàmm ci yoon wi te it moo sos yoonu murit ba mu ñëwut yoonu murit amul bi mu ñëwee ci la yoonu murit amee koo bokkal ndey ak baay mu sukkuraam nga yónni ko mu daw yónni sa nijaay mu daw nga sumi tubay jox ko mu sol ko naa saab jarbaata ba rafaatale tubay ji ma barkeeloo ko Cheikh Rafa la ko ci yoon wi jekku bañ a jekk li gën say bokk dimbali leen raw gaa yi taxaw ni ki ëpp doole doo nogg too bari njariñ te doo lore doo tiitaru xam si ki nit ñi maandu ci ku yàlla bind nga yéene ko jàmm ji mu yéene boppam kenn fekk ba mu xamee sëñ Tuubaa bu ko neexal la mu cay tonni lay tonti dem yoonam keneen du ko mus waaye daa bëgg ñëpp texe moo tax mu gaa yi kaay moo tax mu ne jibril moo ma jàngal li ñuy jébbaloo waaye ku jébbalu maa la jàngal li ñuy jébbaloo ak faaliyaa sëran ma sonn laahu uban wala ilaha illa saalika fàllulaay ni ma laahu rabbi wala ilaha illallah lam yoon ani maa baax ana laahu fala wala ilaha illallah rafaxani ilal jinaani laahu bika wala ilaha illallah borom Tuubaa ne yéenti géej yooyu bi yàlla bindee jaam ñi jóor leen ci benn barab ni alastu bi kom ndax du ma seen borom fekkuma ca barab booba fekkuma fa ñu ne ko fu mu la fekk mu ni salli wa sallim man alaa man xat ajaa baabil balaa yow ma alastu awalaa xam la sawee takkalimu ñeen fukki salaatu faatiha lay wecc ak benn moom bayit woowu Cheikh sëñ Tuubaa ne fekkuma ca woote dëkk Mara Mara Ala Ndiaye ak Mor Baas dëkk Makka Baas ñoo ko ni Sëñ Tuubaa la fekk mu ne yéen ci géej yi la ma yàlla doon wattu loo la ma indi ca géew ba dañoo tëgg làmb ji kenn ñi ma wut a yëkkatiku ma jog taxaw ba habi yàlla kiraaman fara wa baqiya nabiyya sara ma ñëw ci biir gis nga rasulullaay concow ko ne ko kii nag mu ne sunu borom moo nu tànn loo mu ne ko loo ko wax dama ko ne balaa mu ne ma jiital naa la xaatimu nabiyyiina wa imaamul mursaliina yaa jiitu yonent yi yaa leen mottali nee tànn naa ba noppi yow tànnal mu defal damay dem ci li ñu tànn ba mbelli ko ma tànn ci ma dem ci li Rasulullaay tànn li yàlla tànn laay tànn ko ma tànn ca samay Baay Faal moo tax sëñ Mor Mbay Cissé ni ma murit dañ ko ni daa la jéggal Baay Faal dañ ko la dañ ko libéré dañ ko ni yow jéggal nañ la jor ngay taxawal bu woon Cheikh Fall Afrique jàmm du fi am wala adduna jàmm du fi am kon ñu ngi gërëm gaa yi bu baax li tax ñu woote du coow lii nuy coow danoo bëgg nit ñi seen xel nekk ci liggéeyal Cheikh Ibra ndax liggéeyal Sëñ Tuubaa Cheikh Ibra moom amul lu ko yàq te ku la ci man man la àddina man laa laaxira ku la gën a bëgg Sëñ Tuubaa moo la gën ku la ko gën a jige moo la gën te jige Cheikh jige Sëñ Tuubaa bëgg Sëñ Tuubaa Cheikh Ibra Fall lees ko mën aane bunt bi ñu yegee ci yàlla moom bunt Cheikh Ibra ku mu ci yëgalu doo nañ xam kooku kana weeru koor wi ñëw na tey leen koy séentu daam lu ci aju du wax ji jëf lañ ci woote bi xidmatin aw bi ubbin aw adiyat rawatina ki ñu ko tuddee muy sëñ mu demint nga xay boo jàngee naxaju xam nga sëñ mu demint code de la route sëñ mu demint mooy naxaju yar ba teggin yi sutura si baax gi yaru gi yaatu gi yara gi mucc gi xiiwal gi maandu gi kerse gi sutura si boo jàngee na du xam nga sëñ Modou Binta bëyit woo romb boo xoolee sëñ Modou Binta mu amee ca mu mel noonu doom yi mu jur koo ci romb mu mel noonu ñi mu yar ba noppi ci ñoom koo boo jàngee na bëyit woo romb mu mel noonu defaroo noonu moo tax Cheikh ni ku ñu ni diw ak ku gën ndigal ba doom yi màgg ku la gën i dooma la gën mu ñëw nag njaareem nekk fa ab diir xam ne weeru koor ganam la mu woolu maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine Cheikh Ibrahima Fall ñëw Serigne Touba ne ko Cheikh Ibra mu ne ko Mbakke mu ne ko damaa am gan bëgg nga teral gan gi fekk sëñ yaaram mbay la àndaloon Cheikh Ibrahima Fall nag bu ci kanam sëriñ tubaa làmmeñ wi dootu mën a wax tànk yi dootu mën a dox bët yi dootu mën a gis moo tax li ko sëriñ bi wax lënt ci moom ba mu génnee ba sori la laaj sëñ yaaram ne ko lu ku baax ki wax mu ne ko faal ku baax ki nee na day am ay gante bëgg nga teral gan yi mu ne ko góor la jigéen mu ne ko àggut ak man foofa mu ne ko kon de lënt na mu ne ko lënt na moos waaye yaaram gan gi du nit weeru koor la saxu ramadan al mubarak la ma sëriñ Tuubaa di teral loo ne ko yaaram mu ne ko faal mu ne ko bindal ma ndogu moy ndogu yi Baay Faal yi di joxe sëñ yaaram bind ko sëñ Tuubaa ko deel gi ñaata la mu ne ko ñeent Cheikh Ibra Fall keef gi ñaata la mu ne ko ñaar fukk mu ñaar fukk gi ñaata la mu ne juróom mu ne ñaar fukk ak juróom ñeent mu ne ko yaaram ndogu yi ma sëriñ Tuubaa di toggaloo képp ku yëkkati tànk jox ma ko ci tànk tànk la Cheikh Ibra Fall wax tànk nag xam naa ñu mel ni sëñ Mamour xam sa diine nga xam ne ñoom feqoo dañ cee géeju mën naa am ñu mën a xam lu muy tolloon léegi waaye bariwut waaye dana daal ku yëkkati tànk def ko ci sama ndogu yooyu ma gàddul la man Cheikh Ibra Fall ñaar fukki fan ak juróom-ñeent yu nangu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 Thank you. ngeen dégg ci moom rek bu bu jëfee wala bu waxee jëwriñu Cheikh Rafaal Jalla waxal jëwriñu Cheikh Rafaal a jëfal muy Serigne seex Jëmb Fall noo ngi ñaan sa borom yàggal ak dundam lool te wéral ko waaye moom itam li yoon yi baaxoo rek kilifaam yi toog. Serigne Fallou nag di wax ci turu kilifaam yi toog. di rakk jëwriñam di ko yabal. di rakk jëwriñam di ko yabal. Serigne Cheikh Jëmb Fall. te sëñ Cheikh Ndiaye Mbeng nekk ca bopp ba nag. waaye itam nag nee waaye nag lii aada yoon wi. bu lenn Serigne Touba teewee ci biir kër Cheikh rek. bu lenn rek. dañuy fab lépp nag jébbal ko ko. moom it joxe at kàddu. Sëriñ Saliou Mbacké mi toog di moom sëñ Mamadou Lamine Baara mu sëñ Fallu kon mel na ni. kon mel na ne. jataay bi jataay bi Sëriñ Touba la ak maam Cheikh Ibrahima Fall. waaye nag ñu di waaye nag ñu di leen xamal ne. ki ñu tudde bis bii. di sëñ Modou Minta Fall ñoo ngi ñaan suñu borom dollil ko ay ngërëm fi def yëpp moom lañ ko tuddee ndax moo joxe woon ndax moo joxe woon baatu ñu mën a def bis bii bii bu woon ña woon ndigal la woon ña laaj ci woon ndigal kon bis bi foofee lay yem moo joxe baat bi waaye moo joxe woon baat bi nag tuddee tuddee nañ ko nag kilifaam yëpp te tey waajuram. di ay waajuram di ay waajuram. daaw ñu tudde ko magam ju tedd joojee. daaw ñu tudde ko magam ju góor. yal na yàlla dolli ko ngërëm moom itam. léegi la fi sëñ Cheikh ndigal jóge ak rakam yi àndal yëpp bi weeri feeñee nag ba noppi moom bañ ko ko tuddee rek tuddee nañ ko sëñ moo Minta waaye lépp nag ak yàkkali la moo tax ñu aj ko ci ki ko joxoon ndigal li lañ doon séenu nag lañ doon séenu nag na muy weer wi kon nag alhamdulilahi rabbil alamin sëriñ Falil wax na ne xolam sedd na guyu nag ci taxawaay bi xolam day sedd na guyu nag ci taxawaay bi melokaan wi yoon wi bëgg ci bu murit dajee mel nii jotaay bii mel jotaay bii day mel na nii te moom kat dara ñuru ko lu may ak taalibe rek teew na nag ak rakam yëpp teew na fi nag ak rakam yëpp kon nag sëriñ Mouhamadou Ndiaye ngi jaan yaa ñi nga àndal ngeen tudde seen bopp daayira maam Cheikh Ibrahima Fall eh, moom de boo gisee ñu wax Cheikh Ibrahima Fall. ka ka waxoon Cheikh Ibrahima Fall ñu dëkk ko. ka ko. kenn gënu koo xam. kenn gënu koo xam de. di sëñ Modou Minta sëriñ moom. sëriñ moom. boo ko waxee Cheikh. boo ko waxee Cheikh. boo nee sëriñ Cheikh. boo nee sëriñ Cheikh. wàññi nga daraja kay woo. wàññi nga daraja ka ngay woo. ku ne xam na ni. ku ne xam ne. Cheikh a gën a màgg sëriñ. ku ne xam ne Cheikh a gën a màgg sëriñ. maam Sëriñ Touba kenn du ko wax. ko wax. maam xaadim dee su ko wax sëriñ Touba la ñuy wax wala seexul xadim kon nag buñ nee seex kon nag buñ nee seex rek kenn sàllaliwul Seex Rafal ndax ñi ëpp ci murid yi ndax ñi ëpp ci murid yi jort nañ ni jort nañu ne sëñ Modou Amine tam wala ëpp taalibe te wax na nag Seex faal ñu dégg ko ba tàyyi te boolewu ci maam jooji kon Seex Rafal moom seex moom garaat la bu ne ca kaw sëriñ. seex moom garaat la nag bu tegee ca kaw sëriñ. maam ak baay nag moom baay mi sax na ko. maam ak baay moom baay ma sax am nañ ko. boo ne ko seex daal. boo ne ko daal. beru na moom beru nañ beru nga ko nag. kon nag njaboot seex rafal gi fi daje. ñii di ay wajur ñii di wajur ñii kilifa. di jëwriñ sëriñ bi toog. di jëwriñ sëriñ bi toog. mu ngi joxe ay kàddoom. mu yëkkati kàddoom. mu ngi joxe ay kàddoom. mu ngi joxe ay kàddoom. muy kàddu yu cant ak ngërëm. muy kàddu yu cant ak kàddu yu ngërëm. bii nga xam ne dañ ko tuddee way juróom wu tedd wa bés bii nga xam ne dañ ko tuddee nag way wu tedd wa ñi mu ko bokkal ñëpp tabbi ci biir ñi ko bokkal ñëpp tabbi ci biir waaye nag ku ngeen gisul am waaye nag ku ngeen gisul am bu sëriñ bi toogee bu sëriñ bi toogee kenn ku ne beru fi barab kenn ku ne nag beru fi barab noo mën a yara say cër rek noo mën a yara say cër rek nga def ko nga ko waaye rakkam yi mu bokkal sëñ bi waaye rakkam yi mu sëñ bi ki waxoon léegi ki waxoon léegi ni ñaari kër yi nga xam ne du genn ni nga xam ne la du ñu ñaari kër genn kër la kër sëñ Cheikh Fall Khady Gueye kër sëñ Cheikh Fall Khady Gueye ak sëñ Modou Fall ñaari fallu yëpp ngi ak seen rak ñaari fallu yëpp a ak seen rak ñu topp ñoom ñu topp ci ñoom kon taxawaay mat na sëkk kon taxawaay yi mat na sëkk buntu kër Cheikh Fall itam buntu kër Cheikh Fall itam kër gu ne kër gu ne ndaw bàyyikoo na fa ndaw bàyyikoo na fa jëruñu lim seen tur kon jëruñu lim seen tur gis ngeen leen gis nañ leen. gis ngeen leen gis nañ leen. lan taxoon jóg daal am na. lan taxoon a jóg daal am nañ ko. muy gàttandu weer yi muy gàttandu weer yi. ñoom bi ñu laajee baatu ne dañoo a gàttandu weer yi itam. moom ñu laajee baatu ne dañoo a gàttandu weer yi itam. jëmmi Cheikh Rafal jooyee. jëmmi Cheikh xamal ne. da leen a xamal ne. kuy gàttandu gan moom. kuy gàttandu gan moom. kuy séenu gan ku ne. kuy séenu gan ku ne. yow doo nëbb gan yow. yow doo nëbb gan moom. ku ne xam ne ni. ku ne xam ne ni. gannaaw noonu gàttandu weer yi. gannaaw noonu gàttandu weer yi muy gan gi muy gan gi fas nañ ko yéenee gatandu fas nañ ko yéenee gatandu waaye fas nañ ko yéenee dalal waaye fas nañ ko yéenee dalal nag fas nañ ko yéenee teral itam fas nañ ko yéenee teral itam nag loolu ñu fas ci biir xol yi nag loolu ñu fas ci biir xol yi itam yàlla leen ko suñu borom man loo yàlla leen ko suñu borom man loo bis bii yàgg na bis bii yàgg na waaye bis weeru yàgg na itam waaye weer yi yàgg na liggéey bi ñu ci liggéey liggéey bi ñu ci liggéey di ko liggéey Sëriñ Tuubaa di ko liggéey Sëriñ Tuubaa ñun waa Kër Cheikh Fall yàgg na lool yàgg na lool bu ñu mës a def rek. waaye bis bu ñu mës a def rek. wala weer wu mës a dugg. wala weer wu mës liggéey ca liggéey bu sëñ bi gërëm. liggéey ca liggéey bu sëñ bi gërëm. yàlla nañ am ci weer wi. am ci weer wi. ngërëm la ko gën a màgg. ngërëm ko gën a màgg. ci sëñ bi ci sëñ bi. loolu mën naa am. loolu nag mën naa am. kon yéen waa daayira Cheikh Rafal bi. kon yéen waa baa ngi leen di sant di leen gërëm. ci turu jëwriñ Cheikh Rafal ja nag. di sëñ Cheikh Jëmb Fall. sëñ Cheikh Ndiaye mi nga xam ne. mi fi toog bokk ñoom te mu bokk ñoom Cheikh Fall. moom lañ def muy seen kilifa. moom lañ def muy seen kilifa. turu sëñ Saliou Mbacke mii. turu sëñ Saliou Mbacke mii. moom Serigne Touba moom Cheikh Amadou Lamine Bara moom sëñ Fallou. ak rakk sëñ bi fi teew yëpp bi fi teew yëpp rek. moom daal bis bi matal na. moom daal bis bi matal na. nii la ko sëñ bëggee woon. nii la ko da ngeen doon séentu weer. da ngeen doon séentu weer. weer waa ngi ne ngeen di janal. weer waa ngi ne ngeen di janal. na ngeen ko gàttandu. na ngeen ko gàttandu. teral ko teral ko. lu ngeen mën lépp na ngeen ko ci def. lu ngeen amul lu dul moom amul lu dul moom. ñëw na ñëw na nag. yàlla nañ ci dugg ak jàmm. ci ak jàmm. lu ciy bëgg sëñ bi lu nekk. lu ciy bëgg sëñ bi lu nekk. yàlla na suñu borom kattanal nu. mënal nu. ban mën ko nu kawe njort. sëñ baa ngi ñaan loolu. ca daraje joori ñam ke Cheikh Modou Falilou daraje Cheikh Modou Moustapha daraje maam Cheikh Ibrahima Fall mi fi nekk seen daraje Serigne Cheikh Mouhamadoul Mountakha ak sëñ Touba ah sëñ Mountakha sëñ Touba waaw daraje Serigne Mountakha di sëñ Touba jërë ngeen jëfati sëñ bi sant na ñëpp gërëm na ñëpp yooyu kaddu daal bokk na ci kaddu yi si mi doon jottilu